day neex féppay neex féppay dëgër kay. nga xam ne mooy xaytam mooy mu ndeyam mu nekk kii di délégué Amar alors ñaar ñoo ngi lay nuyu. leen di fay site internet yi di fay mes amis Lo mes de Snap. alors tey nga moom mooy sa xarit sa doom. waaw tey sunu xarit sunu doom dañu naan ko délégué di kenn ci wàllu balaa ko rek moo doon fas soxna nag di takkee fële ca États-Unis ñu naan ko United States of America ñu koy ñaanal sëy bu barkeel yàlla yàlla barkeel sëy bi seen i jikko boole seen wërsëg may leen jabar bu ñu mag lañ mag lu seen amoon sallallahu alayhi alors boo xamoon ay témoignages ngay def si moom ak conseil bi nga xam ne nga koy lu baax laa nag célibataire lu baax nag boobu léegi maa ngi bi léegi mu jeex nag incha allah ndax tàngoor dafa metti ma bàyyi ba seddaay bi rek takk jabar benn yoon incha ah, allah conseil xam nga nag célibataire mën a conseiller waane lu ma maîtriser lu ma ci bëgg mais daal yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla barkeel sëy bi yàlla sëy sëy bi doon ci sëy yéen jàmm ci aras li ma njëkk a constaté ci xew yi nag mo damaa ñëw dégg dégg dégg son yu euh, son Sidi ci baas bi nag man ay waaye alhamdulilahi rabi alamin délégué maa takk jabar son Sidi Diop ne ci baas ba yàlla na jàmm yàgg non maanaam noo xam ni musique c'est la musique qui gagne c'est le Sénégal qui gagne c'est l'Afrique qui gagne tey Sidi Diop lu toll ni Zénith de war ko def fële ca la Villette le 29 juin ñu ñun ñëpp dañ ko war a xar suñu tànk tubéy xam ne bu amee ndam ñoo am ndam bu amee defet ñoo am defet ñu koy dégg na sunu grand ñu naan ko Matar Diop Subatel liggéey ci liggéey bu doy waat ndax artistes yu bëri Sénégal yi fi dem Zénith ci loxoom lañ jaar yàlla na ko yàlla defal jàmm ba Zénith le 29 bi réussir ak jàmm man dinaa bi couvrir ko incha toll nii da nga mel ni euh, fi mu amu fi xas amu fi supporter rek ñooy ruube ak waa tribune découverte waaye xaaral rek moo la rek man xaw ma man man sama bopp laa xam man xaw ma keneen bu ngeen laaj keneen ngeen laaj keneen question man mii laaj question mosuma xuloo woykat mosuma xuloo artiste man taxawaay is bu terxee laa taxawee ret képp ku jiw ak Wally Seck ci kàttan suñu borom ci seq moom jàmm buñ jiwoo ci kàttan naa la liggéeyal dew ma fenn nag ñu ma wowul fii ma ñëw nii si délégué ma daf maa invité moo tax ma ñëw bari xaftaan taxul ma dem gënte bu ñu ma yëgalul fuñ ma wóol du ma fa dem foo gis ma taal sama sanam di fa taal dañ maa fay contrat fay ma xaalis bu bari ma ñëw couvrir ko. loolu suma concept la loolu suma philosophe la du question yëg boobu affaire bi gëm-gëm la rek ndax bu ma ñàkkoon fay ci ay anniversaire ngay dem ak ay happy birthday yi doon ak président ama président c'est côté présidentiel yéen ñi yëpp kenn ku ci bokk côté côté ay journalistes yi ngeen génne ceci amay diplôme man yoruma diplôme du ceci laa jaar du diplôme du dara ñetti phrase laa war a àdduna muy ay ay forum formaris eh, bu dem Nations Unies da nga avion président man sama téléphone bi ci laa Nations Unies ci laa demee CEDEAO ci laa demee fekkoon na ma ko ko fulaal ko nit booy saw sax nga war a saw balal bi tooy ñu xam ne yow mi sawantu woo man foofu laa yi dama toog ànd ànd laa taxawee. Euh, quatre quatre mois ci ci ginnaaw. Sonko ak Diomaye mosu ñu génn RTS génn bu leer wala génn fa génn 30 secondes. léegi ñoom ak RTS ñoo bokk ndey baay man état laay na man république laay topp topp ma opposant damay liggéey li ma nekk dama focus man je suis pas un yor ma carte APR yor ma carte Pastef yor ma carte beneen parti. mais képp kuy président sunu euh, wërsëg boole ñi dinaa liggéey te rek tax te xaar ma ci benn nag benn arrière wala benn retour man damay liggéey te yàlla tax rek comme ni ma mel ak Wally Ballago Seck naa ma mel dama gars yi damay liggéey te tax ak gëm li may liggéey ak fonk liggéey bi man foofu laa ne. non Sidi déet mosuma ñàkk wax ci Sidi Diop Sidi Diop xarit la Sidi Diop lan may wecc sam lan may jox sama wecc yu ma ko Sidi lan ma lebal sama jox ma ko ndax fu ma fekk moom moom may sigil moom may sagal moom may yëkkati suma xarit la suma rakk la lépp jaar na ci sunu grand ñu naan ko Matar Diop Subatel yàqul dara ci ànd gi boo gisee artiste artiste bi ma Subatel yëpp fan lañ fekk dama leen ndax dama am ak lo euh, ak euh, Sonatel Sonatel léeg-léeg ay artistes yu Subatel ñoo ñooy def ñooy def kii bi prestation bi fan lañ fekk damay ma xaar yàlla kenn nee naa leen man néew ma ci compétition man ci mission laa ne compétir ma ku yàlla bind mais mais mais daan nga classe gannaaw ba nga demee fële sa. Euh, hmm? loolu du classe loolu loolu loolu loolu ay ay raams du classe. ndax Sidiki Diop dana ba jël sërëbam. nama nama non non loolu pare non pare ak loolu affaire da day rek loolu maanaam loolu la euh, euh, ci ceeb bi rek man xaw ma xaar ma yàlla ku yàlla bind. non du ay showbiz man néew ma ci showbiz yéen a jàpp ay minimisé ndax yéen a jàpp minimisé yéen a nekk foofu man néew ma foofu yéenay gars yi rek ñu ngi naan gars yi gars yi yéenay yi rek la presse sénégalaise yéenay gars yi amul polémique nax ñoom ñaar mos ñoo xuloo mos ñoo waxante lu ñagas waa tribune découverte ñooy kaas rek ak ak ak supporters yi mais Sidi Diop non defante amul showbiz moo demee noonu rek showbiz maanaam Sidi Diop mosul wax lu ñagas Wally Seck Wally Seck mosul wax lu ñagas Sidi Diop mosul gën si ñoom ñaar seen làmmiñ léegi xam loolu yaa ko dégg man dégguma loolu. mooy loolu yëpp du problème man maay Sinapooru Pape Diouf man maay Sinapooru Sidi Diop maay Sinapooru euh, Viviane mais du jënd glace man foofu laa man nee la man ne ma compétition ci mission laa ne damay missionné rek hmm. yàlla ak ma teeloon yàlla ma sural ma bëgg de maa ngi dem di couvrir di mos dara mais loo bëgg léegi nga nga boole ay xulóog yeneen ak yeneen yàlla da lay jéppi sax man sama wërsëg bu dee da ngeen jaakaar ni avril la wërsëg bi jege ne a li ma yëgee Jakarta noonu laa yëgee avion di ko yëgee sa place ko yëgee ci bus di ko yëgee ci man foofu laa ne wax leen li nga xam ne ni fu mu toll nii nekk na ab hmm? ko ne léegi wax sa xalaat daa jeex ci réew mi wala wala dafa jeexul ci réew mais mais lu mu wax a plein droit plein droit wax xalaatam Aziz suma xarit suma kilifa la suma waay la li mu wax xalaatam la rek dama maîtriser ma làmbam man lam li ma ci xam muy Modou Lo muy sama mbër muy sama supporter te yàlla def na ko roi des arènes da ngeen di dem ba ci Aziz Ndiaye biroom Zador ngeen laaj ko posé ko question mu tontu leen mais man li ma roi des arènes Modou xarañ loola doomu yaa njóoba ci série Mariama borom inde sama mbër mi ah, ah, jaa ngeen yàlla yàlla defal leen jàmm ah. soxna si tey mariage ma fii nii Aziz Ndiaye indi ma fi yàlla yàlla defal la jàmm sa létt yi ràpp na nag na nga ko fii nii waaw noo duyu bees maa ngi leen di ziar bu wér ñu li moom. ku ko xaw xam ni ak moom ñoo bokk ndey ak baay moo tax bu ñun li ñu war a def rek lañ def ah bu wootee ñun xamaa ren ñëpp daal di bàyyi seen yitte yi ñëw ci li nga xamante ne moom mooy takk bi lan moo leen soodee quand même ba ngeen bàyyi seen yitte bu ñëw. waaw mais Mourou Mourou mooy Waly Waly mooy Mourou Amar waaw Mourou Amar moom suñu frère la comme ni ma la ko waxee rek bu xewee la ñun ñëpp war a ñëw waaw lii lañ war def. waaw loolu moom yàlla ko waaw yàlla suñu borom la ko papa ak doom mag ak ay seex lépp yàlla moo ñu boole rek. sa bëgg ci Wally kenn dootu ko naatable mais tout le temps dañuy gis booy wax ci Wally Seck sa rongañ di taal la. mais parce que mooy li ma xool boo jàkkaarloog moom ni ko yaa ñu gën suñu bopp parce que nim mu leen téye tax Wally moom mënu wax sax moom. man man man man sama lépp waane la waaw vraiment bu ma wax sax ci moom waaw dañ koy ñaanal rek vraiment man ñaan laa seq moom quoi parce que am na loo xamante ni lu ñu mën a wax lu yàlla suñu borom dogal la waaw sama diggante moo waane xaw ma sax lan la papa ak doom la xam nga loolu dafa jege waaw loolu la rek waaw. barki démb dañoo tiim micro Omaro Omaro di def témoignage si yow. ne Wally daf la jëlee fenn foo xam ne fu doy waar nga defoon accident bu métti daanu troisième étage nga am ay dam-dam yu metti wala Wally daal otom di la wëral ci hôpital yi ba dajee gi yow faj la ba nga toll ni nga toll ni tey. mais avant loolu am na lu jiitu loolu mooy li ma lay wax loolu moo mujj sama diggante mag Wally du damaa defoon choc vraiment man mën naa ni la bi ma juddoo ba léegi li ma am ci bànneex sama adduna. daanaka Wally Seck moo ma ko defal waaw damaa demoon choc mais alhamdulilah Wally taxaw ci ni mu ci war a taxawee waaw vraiment. nit ñi li ñuy wax Wally dafa mën nitam. waaw mais loolu xoolee ko ci man rek man rek doy naa misaal. loolu loolu loolu waaw loolu loolu loolu Wally man rek doy naa misaal waaw dafa mën nitam moom loolu moom mooy loolu. situation yu grave nga ah. yan situation nga nekkoon. yan na ma sax. Wally moo ma defar sang na ma tiim na ma sang ma ba loolu moo gën a rëy kon kooku moo ma defar. sama diggante maa ngi Wally mënu ma wax lépp man ma wax sax ci média. mais keroog waaw mais parce que mooy li ma li fi jaar dafa bari te Wally chaque jour ñun ñu ngi àndal chaque jour mu wàññi lim ñu lim ñu gënee maanaam bari na loo xamante ni kum doon ñun ñu jafante wala dara mais dafa jéggal lépp fàtte lépp man xam naa ni waal li mu doon dox ci xoolam la ko jëlee vraiment jege naa xam naa li mu doon dox ci xolam la ko jëlee mooy li ma wax Wally ku dul yàlla musique bu fi yemoon tey Wally pare na kon li ci des lépp dafa war a rafet loolu la rek. wax bu jóge ci xol. est-ce que di ngeen sentir ci show bi yéen waa Faramaren puisque Sidi léegi yéen a ngi yéen a ngi koy baali sax di ko di ko gën a dooleel ci li nga xam ne man moom moom la sumb muy Zénith. waaw déggoo li ma la wax ki mënul wala ki amul mooy soxor mais waaye dépassé na fu muy soxore vraiment musique bu fi yemoon tey ñu xam ne waaye pare na. waaw liggéey jotee liggéey na vraiment lu waaye mën a wax wax xam ne Wally liggéey jotee marqué na empreinteem si Sénégal waaw Sidi suñu rakk la suñu frère la comme ni ñu war a mën a jàppale bambale jàppale keneen loolu lañ ko war a mën a jàppale du lii du concurrence waaw fii Sénégal ku fi xool xam ne wax dëgg yàlla king bi mooy Wally waaw mais boo jekkoon nag da ngay baal nit ñi waaw may la ñoom loolu dara Ah, si dara war na ko mën a jàppale rakam la bu ñëwee ba këram wàcce boppam tàggu ko comme ni mu defal papa Youssou Ndour defal ko ñeneen ak ñeneen bu ñëwee ci wàllu wàll da koy jégal loolu du dara si suñu frère la waaw. am na côté boo xamante ne déjà man maa ngi doog wax lii taxaw jàkkaarloo ci média di wax. parce que bis bi ni mu toll la wala dara mi ngi wax sax wàll du ci bàyyi xel. billaay wallaay bàyyiwul sax xel sax xel billaay bu ko defee nag ñu tënk te xam ne dañoo ñëw ci suñu takk frère Modou Amar yàlla na leen suñu borom defal jàmm defal ko jàmm. Waly Seck yàlla na ko suñu borom dolli sutura mu sut ndayam fan sut baayam fan waaw ndax lii lépp moo ko boole jërëjëf waaw kontaan naa eh, eh, eh, seen micro li ma añee daa diis ñaari micro rek laa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 day neex féppay neex féppay dëgër kay